Moussa Ka gis nga bi ñu koy misaal dafa wax ne ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa Faas taraw ya euh, rija ma way fi ndaama la gàttoon te gétti waa Faas taraw yaarame naas alam tara ay naa ya mis la cheikh yi jamaalal wa kamaala wa saara was xii Cheikh Bamba du seen mappandoo du seen maas na ngeen jàng borom alas maas ka gétti waa Faas mooy kan ku nekkoon Faas si ama Tijaan Chérif ma fa nekkoon moo tax wax na feneen lu yéeme lu gën a xoromu sax dane sëñ Tuba amul maas kenn waru koo raas kenam amul faas sakkaa fi Bamba les représentants mooy ñi fi toog wutu ko fi sëñ Tuba boo demee ba faas nga Ahmad Tidiane Chérif dëkk sëñ Tuba du moroomam kon ñi ko fi représenté nu mu doone seen moroom sëñ Tuba ne ku dul yàlla maa la féete kaw Cheikh Ahmadou Bamba tiim na ñëpp aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillahi sallallahu wa sallam mbokki taalibe yi ñu ngi ñëw di indi ay leeral ci waxi Gana Messere wax yi muy wax ci cheikh Ahmadou Bamba di ko wax euh, cheikhu Tidiane li may wax man du nekk ne damay ñëw pour wax martabaay cheikhu tijaan wala maqaamaam su boobaa damay décevoir cheikhu Tidiane ndax kim doon lim doon ak nim ñu yare damay wax rekk ne cheikh Ahmadou Bamba. tiitër la ci yoon yu bari tiitër la ci nit ku ñuul tiitër la ci lislaam tiitër la ci wilaayatu tiitër la ci lépp lu waral loolu suma sëriñ bi ma gëm muy Baay Ñas mu ne dem na ba Màkka xaatif waxe ko ci kaw asamaan na ko yow ak Cheikh Ahmadou Bamba ku mel ni yéen ci bëgg yonantu amul loolu sax doyul doy na ma rekk na Cheikh Ahmadou Bamba bi muy génn àdduna dafa taalif teg ko ci dënnam bi ne mu ngi gën ci yàlla ne julli na waxtu bi passé te bi ñëw fekkut ko fi kon jullit xàqan la doy na ma rekk ne wax na ne tooñut boromam tooñut moromam kon ku màndu la te loolu mooy lislaam wax na ne lislaam jikko la sëriñ bu mel noonu nag su la ko yàlla wërsëgale may yim am soo jàngut xamuloo danga koy teg fu mu yeggul soo ko bañee danga koy wàccee fu mu paase alhamdulilahi rabbil alamin ñun ànd nañoog sëriñ boo xam ne daf ñu yóbbu ci dayo ak daraja ñu xam ne mbooleem walliw yàlla doo suufeel kenn am ngir màndeel ka ca des Gana nag gàcce la ci yooni murit ndax sëriñ tuuba jullit la te yonantu den ko laaj ndax jullit dina tàppet mu ne waaw ndax jullit dana njaaloo mu ne waaw ndax jullit dana fen mu ne déedéet yàlla artuñu ci alxuraan ne mu ngi rëbb kuy fenal yàlla ak yonantu yow nag nga paase yàlla ak yonantu di fenal seen walliw bu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ci tele ñëpp di la gis quartier général yi daw teewal neen ko dafa fen ba murit yi rus murit yi nag ñett leen ki nga xam ne yàlla ko booleek sëñ Touba mun na ma dem ci yàlla topp sëriñ Touba kooku bëggu lu dul dëgg ki nga xam ne dafa perte àddunaam foog ne murit lu yomb la da ngay xëy rek doon ko mu ne man murit laa ak ki nga xam ne dafa ragal àdduna gis ne murit yi mel ne nii mu ne xaaral ma askanoo ci ñoom ne moom laa doon loolu nag ñu ngi koy gën a gisee ci ñooñ politique te ñaar ñoo ñëpp duñ murit moo tax sëñ Touba wax ne bisi yowmal qiyaam dinaa doon garab yëngatu xob yu wadd xob yu xob yu wow yëpp wadd ma ànd ak yu tooy dem aljanna lim junj foofu rek mooy képp kuy askanoo ne man Cheikh Ahmadou Bamba may sa sëriñ buñ demee dinaa bàyyi yàlla suma bopp mu vérifier ñu baax ñi ma ànd ak ñoom ñu ànd ak yonantu dem aljanna Cheikh Tidiane Serif eh, Cheikh Ahmadou Bamba bim bëggee yàlla dafa jaar ci tariqa qadiriya jaar ci tariqa tijaniya bi mu demee ba am lim am dafa gestu tagg Cheikhu Tidiane yi taggu tagg tarixa bi ngir su ko defutoon ñàkk ngor te walliw du ñàkk ngor kon su fekkee ne nag Cheikh Ahmadou Bamba liggéey na lu rafet loolu mel melokaan yu kawe yooyu nii du ku koy propagande la ka fenal soxlawut loolu rawatina fen bu dem ba ci walliw bu mel ni Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ngay taxaw di wax ne Serigne Touba du moromi cheikh ah cheikhu tijaan yi loolu dëgg-dëgg tooñ nga murit tooñu tijaan yi de ndax ñun tijaan yi yàlla wërsëgal ñu xam cheikhu tijaan yi xam martabaam xam dayoom fa yàlla ñun gisuñ keneen keneen keneen lijjantiwuñ keneen xamuñ keneen woykat ba dafa wax mu ne gis na ay sang yoo xam ne seen mboole may ñu ngi ko amee ci doon tarix ci doon tijaan ya Cheikh Omar Foutiyou Tall mi gën a dugal nit ñi ci julliti ci nit ñu ñuul ñi taalibe la woon ci Cheikhu Tidiane Ibrahima Rayahi ma doon gis yonantu yàlla Muhammad waxtu bu mu ko neexee taalibe la ci Cheikhu Tidiane maam Khalifa Niass mi nga xam ne xalimbaam dafa dafa toroxal mbooleem nooni julit ñi taalibe Cheikhu Tidiane la ki indi faydu bi di woote xamle yàlla bam ko wootee ba tey gisuñ lu ko weddi te ku dugg xam yàlla taalibeb tijaan la waxuma seexu tijaan leen de ma ne ay toppee seexu tijaan leen jëmm ju mel noonu nag su la ko yàlla nëbbee ba mënoo koo tagg mënoo wax ci moom lu baax waaye waaye taggal sa sëriñ te bàyyi ko sëriñ Touba def na Cheikh def na ci àdduna loo xam ne def ci xam-xam loo xam ne def am jikko yu rafet yoo xam ne mën nga koo tagg ba sa dund bi jeex doo jeexal mbaxam te doo xaste doo saaga doo xalaku doo xalak sa bopp maa ngi defal taalibe Cheikhu Tidiane ne xàq Cheikhu Tidiane moom Cheikhu Tidiane sax tuuti na ci doyadal xàqam waxuma la keneen ku dul Cheikhu Tidiane ndax yàlla daf ko may ba may ko maqaama boo xam ne moom ci boppam xamut ko ndax ni maqaama ba rëyee muy kat yetu am na loo xam ne boo ci duggee sax dafay mel ni damay wàcc ci ci dayoob gànda mesere def lu suufee te ñaari njuumte mënta defar njuumte kon daal li may wax taalibe Cheikhu Tidiane yi mooy ñun tooñut ñu moom mi fekk ñu namm yàlla tudd muridullahi ànd ak xaadimu rasulullahi nga xam ne amul benn ndam ci àdduna lu mooy may mbindaani yonantu bi fekk doomi sëriñ Tuuba yi di jëflanteeg Tidiane itam mu rafet dafa am benn doomi Seydi Ahmed Khalifa Niass ñu koy wax Salma mu ne den ko yóbbante woon ay teraanga ci sëñ Cheikh Xabbaan Mbakke bam demee sëñ Cheikh daf ko ne doomi soxna nga ni man ci kaw ngay toog fi ma toog muy jigéen mu teg ko ci kaw murit noonu la amee teraanga sëriñ Saliou Mbakke kum gisaan nga bokk ci tarixa tijaan daf naan yéenay suñuy mbokk musuloo gis ku bëgg sëriñ Touba te muy dëgg ci moom mu taxaw xas gor rawatina xas jullit rawatina nag jéggi loolu yëpp dem ba ci Cheikhu Tidiane Serif radiyallahu anhu nga koy wax lu ñaw loolu amut. kon ku ko def na ngeen xam ne ku xalaku la ku torox la ku dotteeku la ba pare di mbubboo Serigne Touba gis nga diine lislaam bii am na ay nafiq te an nafiqu laa yadxulul janna du duggaal janna diine lislaam bii. lu ci yàqu lu bari yahud ya ko làq yàq tuddee ko lislaam kon yooni seriñ Tuubaa yi tamit na ngeen ñi ma leen wax ne dañoo perte seen àdduna perte seen àllaaxira jël sëriñ Tuubaa def ko commerce waaye sëriñ Tuubaa waxoon na ne ku ñëw ci man ngir yàlla ma jox la yàlla ku ñëw ci man ngir commerçant ma bàyyee la àdduna su ëllëgee nga bokk ci inal nga bokk ci wa innal fujjaara la fi jahimin innal labraara la fi naimin wa innal fujjaara la fi jahimin nga bokk ci ñooñu rek dee dem safara kon Gana Messere fen yi muy topp di ko fenal sëñ Touba ñi xam histoire di xam ne du dëgg di ci jaar di di ci jaar ji di doyadal Serigne Touba loolu doy na ko nat waxam ju bari jum nekkee ngir utum daraja te yàlla rek taxut te wax ju yàlla taxut dafay mujjeeku gaynde lekk la mujjee mujjee ndox nga lab ca loolu doy na ko mbugal ak torox tànge Cheikhu Tidiane Chérif radiallahu anhu nag kenn du ko laal wax ci àqam lu doxut noonu lu mooy ko yàlla nama toroxal képp ku yàlla namm jàmm ci yow doo wax ci Cheikhu Tidiane lu waxu doo def ci xàqam lu defuwut ki koy def nag soo taxawoon wax sa bopp wallahi ñu tontu la Gana Messere su taxawoon wax boppam rek ñu tontu ko waaye ñun suñ ko tontoo tontu bi dem ci sëñ Touba dañuy tooñ Cheikhou Tidiane te ñun dañoo bëgg suñ sëriñ ndax Cheikhou Tidiane Chérif moo ñu waxoon ne bu leen doya dal beneen wàlliw bu du Tidiane na ngeen fonk wàlliw yëpp Baye Niass wax ñu ne muaziman li ahlihi jamian la siyamal xaasatu kon mu teen xaas nag nekkul ci tijaan yi rek bépp jullit bu màndu taragal yàlla rek jëfee ko ba am may yàlla xaas nga ñun dañoo xam xàmmee te naxuñ ñu moo tax ñu xam suñ sëriñ bëgg ko màndu ci yem ca mbir mi nag kuy tontu na nga tontu Gana Messere moom fenkat bi moom mi topp sëriñ Touba rek di wàññi ak xam di ko doyadal te sëñ Touba weesu loolu munul munta doyadal sëñ Touba de boppam lay doyadal boppam lay ñàkkal xorom boppam lay ñàkkal fayda kon maa ngi waxtaan ak sumay mbokki tijaan ñun ñëpp bugg bëgg seexu tijaan ndax seexu tijaan yi mooy borom tëbbuwaay bi nga xam ne lépp lu jugee ci yonent ak ci yeneen yonent yi ci moom la baraase yonent yàlla Eesa mi mi mi ah Seexu Tijaan kenn du moom Eesa dafa taxaw ne yaa bani israila inni rasulillahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min at-tawrata wa mubasiran bi rasulin yaatiya min baadi ismuhu ahmad mu réeral gaaña ba bim ñëwee ñu ne ko tuddoo Muhammad te Ahmad leen ñu waxoon xamuñu woon ne kii ay kaa kaayee kii yonent yàlla Moussa moom kenn rek a dotam ci yonent yi ndax fañ doon régler bagage ya moo laajoon yàlla na ko yonent yëpp teew neen ba mu des kenn gisuma ko muy Ahmad anamu ñu téye làmmiñam mënta wax kon Cheikhu Tidiane kenn xamut lu mu doon. fii la Serigne Khouli Touré sëriñ Serigne rëy bët ba koy xoolay rëy. ku xool sa sëriñ bët bu rëy ba mu fees àdduna na nga xam ne ca bag banaana rek nga fekk lekk benn lam saf la yeneen yi saf man de dinaa xëy di wax ci Cheikh ma ture ba xotteeku te duma laal xaqi kenn ndax dama xam suma sëriñ mooy kan dinaa xëy di wax ci imaam Cheikh ba xotteeku te duma laal xaqi kenn ndax dama xam suma sëriñ mooy dinaa xëy di wax ci Baye Niass ba xotteeku te duma laal xaqi kenn ndax dama xam dëgg-dëgg kan mooy bàyyi mbindee fii kan mooy dinkiling bamb ning naan yi dina xëy di wax ci Cheikhu Tidiane ba xotte ko te duma ma laal xaq ndax dama xam ne mooy xat miya mooy kat biya dina xëy di wax ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba xotte ko te du ma laal xaq kenn lii mooy xam-xam lii mooy taalibe lii mooy yar dama wax ma ne ànd ak sëriñ jëlewoo ci moom xam-xam bu la war a mun a indil jikko ju rafet ba soo waxee ci mbooloo wax musiba ganna Messere bu waxee ci yeneen sëriñ ci saagaleen bu waxee sëñ Tuubaa fenal ko kooku xalaku na dayoob xalkande nag mooy dugg ci diggante ñaari paaka daf lay dagg ñaari sëriñ ku dugg seen diggante mu dagg la Cheikh Ahmadou Bamba lu rafet la wax ci sëñ Touba ak taalibe sëñ Touba yi Cheikh Ahmadou Bamba lu rafet lu rëy ay maqaama yu rëy la wax ci Maodo Malick te Maodo du Seexu Tijaan taalibeeb Seexu Tijaan la waa su fekkee ne nag yow ki nga gëm dafa rafetal ay doomam commencé ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke wàcc ba ci sëriñ Saliou Mbacke dañoo rafetal ay sëtam commencé si sëñ Fallou ñëw ci ñëw ci euh, euh, sëñ mu sëñ Cheikh Mati lay ñëw ba ci kalifa eh, bi borom muuñ bu rafet bi sëñ Muntaxa Mbàkke ñëpp dañoo rafetal yow nga ñëw ñaawal yow yaa ñaawal Cheikh Ibra Fall mi fànna woon nekk ci pays yàlla yi léppam di yàlla musta wax ñaawal ci benn tijaan ndax dafa jeexoon ci sëñ Tuba ba gisul keneen ku dul tijaan dafa am benn tontu bu ma déggoon Lamp Fall FM mu neex ma dafa am kenn ku woote ne yéen da ngeen wax ne rajo jullit ngeen am te du ngeen wax ci keneen ci sëñ Tuba rek ngay wax waaj na ko waa nga baal ñu dañoo noppeegul ci sëñ bi buñ noppee ci sëñ bi jàll ci njaboot gi jàll ci sëti jàll ci taalibe jàll ci ñeneen xam nga kooku du saaga kenn waaye su fekkee ne yow saa yoo waxee yaa ngi yëkkati sa làmmiñ pour ñu gërëm la yaakaar nga loo am yaa ngi wax lu neex nit ñi di leb la ci sa wax di ci fay boro yàlla du tax te lu yàlla taxut yàlla du fay wax ci wàllu yàlla yi nag moo gën a jafe ndax soo ne yàlla mooy dundale yàlla mooy reyee wax nga dëgg waaye nag pour nga wax ci xàqi wàllu yàlla yi da ngay dajal yàlla da ngay dajal yàlla yàlla duñ ko woolu de den koy gëm yonent yàlla la ñuy wóolu ndax mooy boroom amaanatu yërmande yàlla gi ci la bukki bi reeree reeree reeree bi kon yàlla duñ ko woolu yàlla den koy gëm den koy jaamu yonentu den koy wóolu dañuy faslanteeg moom kóllëre moo tax waxkat bi ki jiite ni ñëpp bàyyi mbindee fi ne inni inna nii tuulal xayaati rabbu am nii wa amaanin kon daal maa ngi defal taalibe Cheikhu Tidiane neen muuñ te xam ne ku yàlla nëbbu Cheikhu Tidiane doo ko xam ku xamul Cheikhu Tidiane da ngay jalgati ak xam waaye képp ko askanoo ci sëriñ ku munti doon xas beneen sëriñ rek yow gëmoo sëriñ bo daf ñuy leer na nàmpoo ndax lu nga nàmp lay ngay gàll te wàlli wi kenn lu bon kon ku wax lu bon ci xaqi wàlli wi yow yaa bon da ngay weeru rek Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi koy ziyaare ngir lim bëgg yàlla ak yonantu ñu koy ndokkeel ci lim bëgg yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy bàyyee mbooleem mayam dara yàqalul ñu ci doy nañu suñ sëriñ li ko yàlla may ñun ci loolu leen concentré waaye nag bëgg neen suñ sëriñ bëgg goo xam ne ku ko laal dina ñu wóor ne suñ sëriñ martaba bi dina ñëw sa kaw de waaye ñun taalibee Seexu Tijaan dinañ dal sa kaw ci suñ làmmeñ yoo xam ne boo ko dégloo mu nekk fett sa xol bi ci suñ xalima yoo xam ne doo ko gis ci suñ xaatir mu damm la wàññi la maa ngi woote man waxuma de ndax mënuma maa ngi woo àdduna yëpp ñu xool gànna Messere ren ba déwén su tuubut lu koy dal waxuma mën naa dara waxuma danaa def dara déedéet dama ne nen leen ubbi suñ bët ndaje mu ne seetaan na ca dàq ren ba déwén tuubalut Seexu Tijaan yi ñu xool lu koy dal mën naa bégal ne yàlla dana ko uññi bañ xam lu ci xolam bi xam ne naa feq gu mat sëkk réeree sëñ Tuubaa gu mat sëkk wax ju rëy ju mat sëkk moo nekk ci xolam waaye dara leer yi sëñ Tuubaa nekkut ci moom loolu dana feeñ ba àdduna xam ko kon mbokk yi mënuma wax lu weesu lii yéen ñëpp seen xol yi li muy jooye maa ngi koy yëg na ngeen xam ne ñaari taalibe Seexu Tijaan ñoo réere woon ci masala ba meroo Cheikh Tidiane toog ay fan gisut yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yónni Ibrahima Rayaahi Ibrahima Rayaahi dem si yónnantu na ko waxal sa taalibe yi ne buñ di bañante buñ di merowante ndax suñ merowante mer mi ci man lay egg si man rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon na ngeen xam ne seen mer yi ngeen mer meru leen lu mooy ne dafa am ku tudd Gana Messere jalgate xàq Seexu Tijaan yi saaga ko xas ko doya dal ko jël sëñ Tuubaa teg ci kawam loolu moo leen naqari na ngeen xam ne yonantoo ngi mer ànd ak yéen te moom rek la yàlla wax na ko wala sawfa yutika rabbuka fatarda kon daal ñu moytandeku ne bu ñuy tontu gànn mesere nen tontu naafeq bi neen tontu fenkat bi nen tontu ki réeree sëñ Tuubaa tey woote wone taalibeem la neen tontu ki nga xam ne waxam safut lu mooy ku réeree sëñ Tuubaa dama dama ngeen bàyyi xel ne eh, gànn mesere waxam mu ngi neex ñu xamul sëñ Tuubaa waaye képp ku bëgg sañ Tuubaa xam ko fonk ko jàng alquran di ko jëfe di jëfe xasaayit su gànna waxee nga rus billahi lazi la ilaha illa huwa te fa mu waxee koo gis muy commenté rek dafa réeree sëñ Touba réeree sëñ Touba nag du da nga war a nekk doom xam ko du danga nga war a nekk sët xam ko du da nga war a nekk jàmbur xam ko réeree sëñ Touba mooy ku yàlla xamalut sëñ Touba ak foo mën a bokk ak koo mën a doon. kon suma mbokki taalibe yi maa ngi leen di dëfal di leen wax ne am na ku ko ëppoon alal ëpp ko xam-xam ëpp ko pexe ëppoon ñu ko ngemb jug ngir Seexu Tijaan yi waaye dafa fakkastalu dafa daanu àddunaam dafa yàqu Gana Messere jàngul lu bari amul xam-xam bu bari Sénégal la neex amee xam-xam rek ndax boo jàngee mursid di ko firi ñu ne sëriñ bi du amul morom boo wér daal di biiñe ko siiku di woote maqaama ñu ne eskay amul morom Sénégal moom maanaam masala yëpp a ngi fii waaye jëfee masala dafa manqué ixlaas a manqué Sénégal waaye maa ngi leen di gëñal ci yàlla ne sëriñ Muntaxa Mbàkke am na lu ko métti lool ci waxi Gana Messere ndax nit ko sell la ak mboolee muridullaahi bu xam sëñ Tuubaa bëgg ko kon neen bàyyi murit yi murit yi ñooy ñi namu yàlla ñoom waxuñ defuñ gisuñ seen yoon nekkut ci Gana Messere fenkat bu rëy bi naafeq bu rëy bi nit ku yées ki nit ku réeree yàlla ki nit ku réeree sëñ Tuubaa bi mooy wax waxi xamadem rek waaye àdduna mu suñ kanam Cheikh Ibra Fall mu ne jëf jël Cheikh Omar Touré mu ne naa ko def naa ko gis rek kon moom jëfam moo koy atte wax ji du tontu ko ndax wallahi dama jàpp torop pour tontu ko takkusaan taalibe Cheikhu Tidiane nekk ci laasimam dana ca teg yaaman asharal jamila wasatar al qabih dana ca teg mu musabaatul asri dana ca teg seyru ziyaare bu ngoon gi wàccee sax mu wasifa ba pare julli timis julli juróom-benn rakka yi Seexu Tijaan wax ne dëggalal naa ko ci sumay taalibe ñu di ko def te muy sunnatu rasulullah boo xam ne bokk na ci sunna yu yonantu wax ne su ma bañutoon coono ma teg leen ko nga julli ko pare julli gaye julli salaatu yi lay bëggloo yonantu sallallahu alayhi wa sallam pare jàng sa buddo jàng sa yeneen awraat ñun we are too busy ci lii ngir tontuwante Gana Messere waaye dinaa wax ak sama mbokki taalibe pour defal leen na leen lii yàgg na fi Charlie Hebdo ñoo fi doon taxaw di caricature yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lum jëriñ ana ki bindoon film ba Hollande di car di di caricature yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi lum jëriñ kon na murit yi wax ci Gana Messere ngir ñu faram fàcce dëgg ak fen moo tax may wax ne neen di leeral jàmbaar yi ngir yàmbar yi feeñ neen di gërëm ñu baax ñi ngir ñu bon ñi feeñ noppi ci dëgg seetaane bu muumu ne nga neen ci wax suñu àq rek ndax ñu xàmmee mbir yi ñu nekkul taalibe buñ génnoon ci diggante sëriñ si rek taalibe yi feeñ bi jamono baaxee bi jamono baaxee murit suñ ko tooñaan dafay dafay muñ jamono dem ba murit mënatuñ ko tooñ ngir am na doole waaye nag bul ñëw ci biir murit yi di saaga keneen mel ni murit yaa ko def murit munta saaga xamu ko damay wax ma ne man sëriñ ci senegal si sëriñ Touba ma ci gën a neex lu tax mooy dafa bokk ak bay Niass demin jugin am na jamono boo nekkee taalibe Baye ñu tas sa sëy génnee la ci kër gi toroqal la xéeféer la am na jamono boo nekkee murit ñu génnee la dëkk bi boo bayoon tool sax ba muy tontóor ñu ñëw dagg ko murit léegi la neex ba ay fenkat bokk seen biir di oote woo murit ay naafeq bokk seen biir di oote murit murit ya njëkk ya dañoo jàngoon xam moo taxoon murid yi kenn déggut leen woon ci lu mooy liggéey ak civilisation liggéey boobu moo jur résultat bu ñu am su doon wax ju bareeg fen murid du dem ndax fen amul mucc waaye murid dem na kañ la murid judd ci anglais just recently yàggut fu murid eggut ci àdduna fépp la daj dafa tegu ci dëgg ñu mel ni gànna mesere bii mënuñoo yóbbu yooni murid fen lu mooy ci gàcc waaye nag seen bopp la ñuy gàccal ndax sëriñ Touba waxoon na ne si yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ma jox tariqa bi garanti na ko aar na ko kon na loolu leer na loolu leer ne Gana Messere mooy fenkat mooy nit ku bon mooy ku xamul sëñ Touba ku xamul Seexu Tijaan waaye muriti xasuñ Seexu Tijaan Seexu taalibe Seexu Tijaan yi xasuñ muriti ndax murit mu nga concentré ci ci ci ci sëriñ Touba ba talut Cheikhu tijaan Cheikhu Tidiane taalibe mi ñu ngi concentré ci Cheikhu Tidiane ba taluñ sëñ Touba li ñu am sëñ Touba rek mooy xamal ko lu rafet te wax ko lii rek mooy mbir maa ngi jéggalu di yemale fii waxtaan bi di ñaan yàlla yal na yàlla dimbale bépp murit bu nekk ci jàngale sëñ Touba te bëggoo lu mooy sëñ Touba yal na la yàlla waneleeg sa sëriñ ñun. yal neen dund hmm. dee ñu pang ñu ñu ñu ci bëgg Cheikhu Tidiane ñu ànd ak Cheikhu wax jarut ko jamono result la ñu toll maa ngi leen di bàyyiloo xel ne su wax jii ma wax yaa ngi xamee dayob nit ñi ci seen commentaire yi ki gëm sëriñam te muy dëgg bu commentaire nga ndaw ko ki xamut sëriñam nag xamut àdduna moom saaga rek lay def nit lu mu am lay joxe Gana Messere dafa réeree sañ Touba fen xam fen di wax fen man dama xam suma sëriñ di wax lu yiw ci suma sëriñ ba koy wax ci sëñ Touba te su ma fi nekkoon it di wax ci sëñ Touba lu yiwa di man lay wàññi du ko wàññi dara moom jag na ba jagaaleel ñu ko topp te dafay gën a jagle ba àdduna tukki wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.